Moustapha si yëkkati woon jëmale ko ci bu yëkkatee kaddu nag jëmale ko ci ab yonent yaakaar naa bu yëkkatee ay kàddu jëmale ko ci yow ngay def politique waxuñu sa kasketu sëriñ mais kasketu politique la wax kon maa ngi leeral ni ñun dañuy def politique di jàppale président Macky sàll képp ku yëkkatee kaddu jëmale ko ci président mi nga xam ne moom lan àndal boo dee ab sëriñ daneen génn jàkkaarloo ak yow tontu la loolu nag moom lañ jël engagement ñàkk a jekk ci loolu la nekk nan xam ne ab sëriñ bu demee bay def politique sol casquette politique kon di wax ci politique kon nit ñi am nañ droit tontu la ci politique kon loolu soxna si di wax dafa nettali rek waaye waxut ay wax yoo xam ne waxi boppam kon maa ngi ñaan réew mi ñu tegaat ko mbir mi ci yoon xam ne ñun sëriñ siy def politique doon ay citoyen lañ li ñuy wax it ñun ñoo engagé préféré de politique kon loolu it maa ngi wax ne képp ku yëkkati kàddu jëmale ko ci président Macky Sall boo dee ab sëriñ la dana yëkkati suñu kaddu ñu ngi doon lii gëm la engagement ma di ko wax jëmale ko muy ñoom nan bàyyi xel sëriñ si àndal nan jàpp seen sëriñ si àndal bu fekkee ne da ngaa jël ay engagement ànd ak ñoom doonub sëriñ te ku yëkkati kaddu doonub sëriñ nga wax ak ñoom joxañ leen ñoom it waru ñuy organiser lenn lu jëm ci sëriñ wala ñu dem ci ay réew yoo xam ne ay julle lan ci sëriñ sooy seen dugaluñu ci seen loxo loolu lu koy indi nag dama jàpp ne commerçant mooy tontu commerçant baykat mooy tontu baykat journaliste mën naa wax ak moroom journaliste am moo tax ab sëriñ ab ci tontu ci fii ku fi joxoñ président Macky Sall danaa la joxoñ loolu na leer nañ loolu laa woon naa leen woo pour jàllale li nga xam ne mooy information ak suñuy engagement waaw